wéy naa la. naa mhm. euh, tey Saint-Valentin la nga jigéen yàgg plaider cause jigéen ñi bëgguloo ko dóor jigéen violence yu ñuy def jigéen ñi tout le temps Queen daf koy plaidé. dëgg la dëgg la waaw ah loolu moom dafay ñaaw chaque fois ñu ngi koy dénoncé di ko dénoncé di ko dénoncé di ñaan nag yàlla mu jóg fi ndax jigéen mooy yaay mooy soxna mooy lépp daal donc. Euh, hmm. Queen fan yaa ngi gis yëngu-yëngu yi ci réew mi viol yi ci xale yu ndaw yi. Euh, wàllu pédophilie yi jigéen ñi ñuy jàpp ba nopp duma leen rey leen. metti rek franchement damay naan chaque loolu laay wax nii ne xàmmeetuma sax sama réew xàmmeetuñu Sénégal euh, euh, di wax nag ñu gën a accentuer ci éducation de base parce que lépp ci éducation de base bi la ñu gën a ñaax xale yi depuis ñuy nekk ndaw ñuy xam yenn yenn valeurs yi parce que violence moom dañ koy condamner. ñu koy condamné jusqu'à la dernière énergie parce que euh, violence baaxul ci réew. te du exemple bu baax Sénégal xamuñu woon loolu dëkku jàmm la dëkku salaam la donc tey bu ñu gisee lu mel noonu rek daf ñuy xaw a jaaxal. ak bi ñu waroon a jox jigéen est-ce que jox nañ ko ko. waa des na mais xam naa ni dinañ ci def ay jéego parce que ñëpp ñu ngi ciy wax. ñëpp ñu ngi ciy wax saa su ne te gis naa ne inshallah dina dina dina baax jigéen de plus en plus ñuy dem ñi ngi gën a reconnaître valeur jigéen quand même. le regroupement bu ñëw nga dugg nga ci biir salle bi mais dafa mel ni que dafa fiasco wala loolu doon objectif non fiasco wul fiasco wul parce que l' essentiel c' est de faire et c' est de tenter de faire aussi donc euh, ils ont ils ont ils ont tenté. te macha allah nit ñi ñoo nañu wuy si leen alhamdulilah. ku ne ana maman bi dama gis keroog King Fat nga wax ci mère ba mu yàgg nga joy tu avais di mal pour wax ci sa yaay lan la sa yaay def ci yow ba sa boy wax ci mom rek souvent souvent kenn ah koku kenn la ci man boo ma ci laajaatee sax ma yaq émission bi motax nak mom dana xanaa di ko ziar rek yaay boy de ko ñaanal yalla gudd fan ak wër koku mom ah bien sûr koku luñu doon mom la mom ak suñu papa ju baax jooju macha allah bëgg njabot Euh, uuf ñëpp nag nekk nekk yaay ji niñ koy waxee ndey ji seex la xaw ma uufandoo ñëpp ñëpp ñëpp du ñun kese du ñun ñu kese ñooy doomam muy koñ ba fépp mbokk yeeg ñëpp ñëpp ñëpp la boole uuf ba tey yàlla def li muy def donc foog fi ñu toog di ko gërëm di ko sant. ah mi ngi fi ah doo ko gis dama koo dama koo nëbb <laughs>